mooy plateforme F24 tey ñu ñëw gis euh, malheureusement nag li nga xam ne jot na muy préfet bu interdire manifestation yi tey lan mooy sa lan mooy lan lan ngay décrire situation boobu noonu. waaw bon ñu ngi ñu ngi rafetlu interdire people 221 people 221 bon tey nag jot nañu waxtaan si plénière bi mais y a beaucoup de motifs bi sax dafa dafa soulever motif ba ñu nekk en deuil te pour jaxase ñoo la ñu doon kii dañuy reculer nag pour pour pour mieux sauter dañuy reculer mieux sauter dañoo sursoir ci manifestation marche bu suba bi incha allah dinañ yeneen beneen date bi nga xamante dinañ dinañ ñoom duñu mën a am alibi parce que xëy na ni ñoom dañuy jéem a ay technique yu ñuy bloqué mhm. ñu ne dinañ ko def rek avec intelligence bu ñu jaaree fii ñu jaar leen fee waaw incha allah dinañ ñëwaat euh, ci manifestation ginnaaw bi nga xam te ne manifestation bi annulé nañ ko beneen défi pour F24 lan lañ mën a wax fan fan feneen fan ngeen mën a jaar inchallah xam nga daf yu bëri ñu ngi ñëw bëgguma sax avancé ci ci génnee li nga xamante ne dañ ko wax ni waxu biir la dinañ bàyyi inchallah gis nga président doyen Mbodj mhm. lu mu wax chaque fois rek ñun dañuy waxtaan waxtaanu biir jiital le euh, le doyen Mbodj mu ñëw wax leen incha allah bu ñu jàppaatee daf dinañ leen ko waxaat mais du yomb de du yomb de fi ñu nekkoon fa lañu nekk ba tey ñi ngi bañ troisième mandat ñi ngi bañ le report duñ ko yokkal duñ ko duñ ko wàññi na dem na dem du bokk te ñëpp a war a bokk. dëgg la te dina libéré nag les détenus politiques. d' accord ci foofu détenus yi dinañu ci foofu laay ñëw ñu gis euh, li dal Ndeye Ndate ñu jàpp ko waat ko kii de dip tamit ñu nekk di leen menacé ndax ndax fi mu toll nii il faut avoir peur. Euh, ah? ndax il faut avoir peur fu mu toll nii. non suñu ragal mosuñu ragal te xam nga ni ñun moom ragal bokkul ci suñu ci suñu vocabulaire suñu ragaloo yëpp du ñu du ñu ñëw bokk ci F24 parce que F24.

ci xeex injustice xeex suñu liberté xeex suñu démocratie ma ne dama koy bantuwaat ma ne Macky Sall du bokk te ñëppay bokk dina bàyyi les détenus politiques yokk luñ ko wàññi luñ ko élection yi jënd ko dañ ciy dem ba jeex te incha allah dinañ ñëwaat ci marche bu doy waar Sénégal di ngeen ci xam dara bii nag dañ ko reporté mhm. waaw pour ma sénégalais yi def def seen béy comme ko waxee ñun duñu nangu ku ñu booleeg sénégalais yi mhm. incha allah waaw gis nañ que actuellement Sénégal situation bi mu nekk mhm. day soxla ñi xam ne seen

ma ñëwaat en 2012 comme 2013 ci laa def plus jamais ça bi nga xamné dama dugg biir université bi ñi ray Bassirou Faye mhm. bu nekké yéen a ngi fàttaliku bu baax donc engagement dañ cey yàgg mhm. xëy nak tay la laa nekk xam nga une personnalité active nak ci biir politique parce que légui je suis présidente de mouvement muy le mouvement des jeunes pour la rupture di leen wax ne nak

ñi jël décision nopi ñom la concerné mm. Mm. mais man personnellement euh, jëluma décision nopi mm. dina wax ragaluma ci ni ah. ragaluma ci leen incha alors une toute dernière question gis nañ que ni euh, temps yële ci ginnaaw sa position ci wàllum politique taxone na mm-hmm. état yi la persécuté buñ ko mënee duppee noonu mm-hmm. ñu doon déggoon impu mu nga xamni ni moom kii bi ko a fay mbir mm-hmm. mu ni mel est-ce que mën nga ci càmbaral tout bu mujjee

dañuy kon dañuy dañuy naan kon kii ragal la te man li ma ko doon waxee sama conférence de presse nee naa ragal du jigi raay te ñun duñu ragal ndawu Sénégal ñoo taxaw te duñu ragal mm. incha allah xeex bi dañu koy xeex gis nga Nelson Mandela nii la xeexalee woon mm. euh, dëkkam mm. euh, li nga bëgg ci sa ci li nga bëgg ci sa réew yaa ko mën a xeexal sa bopp tëdd nelaw mayu la ko toog ci sa canapé wala sa salon taal sa clim mayu la ko te instant bii nii dootuñu nangu du civil ñun dañu nekk dañu nekk ay doomu Sénégal réew mi ñoo ko moom injustice bi ñu fi gis nii benn poignée de personnes tëye ko duñ ko nangu ñoom ñoo yor réew mi ñoom ñoo yor suñu alal jeunesse bi sonn liggéey yu ñu xale koo ci gis bëggatul toog Sénégal ñi ngi jël gaali bi dem ñii ñi ngi bëgg a voyager immigré pour lan te Sénégal am na lépp wala tey pétrole ak gaz waxatuma organe Kédougou

waaw dinañ ci dem ba jeex on ira jusqu'au bout avec le président Macky Sall fu mu yem neex. man moom ragaluma ko. est-ce que yaa ngi waaj a génne dara pour wane sa naqar. incha allah lu bëri dina génn. du ah. benn sax du benn du ñaar lu bëri dina génn. Ah, merci beaucoup jërëjëf. merci. Ah. soixante-dix enregistré